sa rôle fii ci kër gi maanaam sa njariñ ci kër gi lan lañ la fi tegee yow. pour ma gérer sécurité bi. mais sécurité bi gérer woo ko sécurité buntu kër gi ak sécurité biir kër gi yépp yow yaa ko war a gérer yow yaay xool li yàqu ci kër gi nga defar ko yaay xool li bëgg a yàqu nga defar ko diggante Sofia ak Ndey Daba tongoo guddi tongoo bëccëg mais loolu fan la la fekk yow. nag sama sécurité ci buntu kër gi la yem de ñooñu say jabar lañu foofu dama fay maandu ndax yoo leen di butur ngale di leen damarut kon am na foo xamante ni. Euh, sama yoon nekkul foofu. Euh, séeréer waaw. man dama bëgg nga respecté ma man maa lay fay chaque weer. waaw am na yenn kàddu yoo xamante ni bu mu bàyyeekoo si yow di ñëw ci man ndax yaa ngi may dégg. waaw dama laa laaj ndax lan mooy sa ci kër gi. dama la fee teg pour lépp lu nga xamante ne mu ngi bëgg yàqu nga defar ko lépp loo xamante ne mu ngi jóge ca àll ba di dugg ci kër gi nga na ko xam nga naan ma yaa leen di butuur nga lekk yaa leen lu kenn xamul loolu na njëkk tey na mujj tey bul ma ko waxati. maa maa ngi tuub soriwul ci kër gi defoo ko. maa ngi tuub li li li ma li nga li nga xam ci kër gi yëpp dama bëgg nga wax ma ko. lii nëbb li feeñ lépp mais nga wax ma ko mais séeréer yow est-ce que mës nga ma fee ñëw ne ma lii ak lii lii ak lii lii ak lii mais mësul am. non man ni ngay gisee nii man buntu kër gi nag laa séeréer kër gi moom ku nar a dugg bu warta dugg dama naan ko doo dugg ci foofu laa yam mais ci biir kër gi moom non foofu wax dëgg dama maandu foofu waaw. ah da nga ci biir kër gi. ba lépp loo xamante ne nit mu ngi koy def ci kër gi loo xamante ni du yoon sax yow danga nga ciy maandu. waaw bu ma tegee sama bët du ci maandu. yow sa aqulaay taala bi nga nekkee ci kër gi ba tey gisoo lenn loo xamante ne teg ngi sa bët lu anormal lu defu yow laay laaj. Ah, wax dëgg yàlla moom li ma la wax rek ci buntu kër gi laa yam de bu ma la nee ci biir kër gi gis naa fi lu ma xamul it ah. damay wax lu ma neex rek. ok accord comme nag man dama lay fay chaque mois. di jël sama xaalis di ko jox te andiloo ma benn information andiloo ma lenn loo xamante ni mën naa cee teg sama loxo bii ba xam nii lii baax na baaxul. Uh-huh. yow di ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ndogu moo la fa bàyyi yow. maanaam yow boo ndogoo ba pare ba naan sayu yu sedd. Uh-huh. yow ba nga jël sa bagage bi nga fi am nga après nga dem ñibbi. ma gën kenn waxuma la génn kër gi sax waaye dëkk bi ci boppam ngay génn. ah njaatige nag loolu dina diis day neex mais dëkk bi ci boppam moom ngay génn ndax lii sàndub xaalis la. yow njaatige boo ma daqee fan laa jëm. njaatige foo xam jamono loolu sama yoon nekk foo xam jamono. wala nag njaatige nag dañuy waxtaan damaa wóor nag waaye dinaa la wax ndax wax mooy indi wax njaatige gis nga du ma fen nag damaa maandu mais dinaa la wax gis nga keroog. cin loolu ñu war a moom ba mu indi ay détails ci kër gi ci sa ñaari jabar ñuy xuloo cin di sa ndijaay ko xorom maa ko bet mu koy xorom ne mu kar ma ne ma maandul sinon dama lay jam ma tiit nee naa ko suturaal suturaal sama bopp waaw gannaaw nag demee na nii ba demee nii te comme que dangaa nar a ma wax la li fi nekk na yam nag sama diggante ak yow ak yàlla mu jeex daj bu ma xam sax kan moo lay wax loolu li coow li doon bari bari yépp ñu naan kii laam du kii kee laam du kee ndekete yow xam nga ki xoom cin bi te waxoo ko di ko protéger ba pare nag est-ce que xam nga nii dafa am loo xamante ne nit ñi ngi koy def mais lu ñu war a bàyyi la àq dafa sew waaw ki nga xamante ni chaque mois day jël xaalisam jox la kon kooku noonu jàpp naa ni xaalis boobu ngay lekk daf laa war a lew mm-hmm. mais am na ñoo xamante ne ñu ngi ñëw di garder wala di di di liggéeyal nit liñ leen di fay chaque mois ay riba rek lay doon ci ñëw ndax defuñu li ñu war a def. non moom bii rek laa kii quoi bii moom. amul bii gis nga bàkkaar bàkkaar la rek. Hmm. bu gudd beeg bu gàtt bee ci yam bàkkaar bàkkaar la rek tey jii mënoon nañ koo jiiñ ñeneen te xam nga dëgg bi fu mu féete. kon lan moo tax nit ñi mënu ñoo wax dëgg. dee leen di wax dëgg bu ngeen gisee nen nee leen lii nen la bu ngeen gisee leneen ne leneen la. non man moom du ma duwul moom. Birago moom. Mhm. tey dina ma dégg. gis nga bis bu ñëwee fii. Mhm. dinaa ko woo ba mu ñëw ma wax ko lépp ne ko nag. Mhm. séeréer bett na la. nga xorom cin bi lépp man daal. ci non bul ne ko séeréer moo la bett de. ne ko yow yaa xorom cin li teg ko pérékson mais bu ci tudd sama tur. nee naa la dama cee maandu. li may lijjanti séeréer dinaa ko lijjanti. Oh, wóorul yow kay maandu. waaw boo maandu woon lii yëpp doo ko wax. non xam nga nag yaa ma yaa ma yaa ne da may dàq. mais tamit xam nga fii bi sama teraanga. kon daal faw boo xoolee bu ma demee dëkk ba ñu tegee bool bi bu ma ñaagee ceeb bi ne mbiic fii laa ko amee. d'accord ba ma daqee mooy nii ne kon daal faw ñu gëtan leen pour ngeen mën a wax dëgg. mi daal foofu la toll. faw ñu menacé nit ki dóor ko saaga ko xas ko dàq bëgg koo dàq pour mu mën a wax dëgg. loolu daal moom moom mooy baax baax bi ay bisimilah mën ngaa dem man xam li may baax na. ma yëg ci kaw waaw. jaatige eh, jaatige. séeréer. dama lay ñaan ngir jëmi sëñ Cheikh ndigal seen mi ci njaambur dimbale ma rek ngir yàlla bëggoon ne man maa la ko wax parce que man bugguma tooñ te dama maandu. dimle ma rek ngir yàlla dégg nga loolu la samuloo waaye dimle ma rek démb xaw moo ko ku mujjee tëdd bàyyi bunt bi mu naan déer déer ba pare ña kër gi kër gi amul ku yeew kenn nanguwul la yeew kenn kenn kenn man euh, ah? ah? lu ëpp dafay tuuru mais nijaay yow ni nga nekk ci kër gi di jaxase ji mélanger di ruube pour lan mais yàq gi nga nekk ci kër gi di boole nit ñi di wax fii di jël fii di bàyyi fii di yóbbu fële pour lan te nga ni kilifa nga mais nijaay yow boo bàyyeekoo sa kër ñëw sama kër da nga war a mën a xool luy defar nga di ko wax. xool loo xamante ni day boole nga di ko wax mais chaque fois nijaay jaxase guddi jaxase bëccëg mais nijaay kilifa nga. non dafa am loo xamante ne nag yow boo ko attanee def yow mii sama kilifa man xamatuma ci dara bul yaakaar ne nag li nga nekk ci kër gi xaw ma ko wax nañ ma lépp gis nga nag boo deful ndànk man damay jël samay décision lu ma ci fekk nag ma xam ne lii moom ma ci fekk gis nga mbuus bi nga am fii boo deful ndànk di nga ko jël ne mott dëkk ndax man dama sonn ci say mbir non dama sonn nijaay dama sonn ma man lu ma def. mais yow li nga def xamoo ko. xale yi xale yi may organiser loolu boo fi nekkul ku leen di organiser. mais ak ni ngay organiser mais bu fekkee da ngay organiser di wax kii lii boo demee wax kee lee jóge fa dem fële loolu kilifa du ko def kilifa dafa am nu mu war a taxawoo ci këram rawatina nag ci këru jàmbur na njëkk tey nag na mujj tey yow moom bu amee ne nag bu amul ne lu sa yoon. ma sëndi yaay la man boo ma dàqee fat fi keneen fatoo sa xeet bu fàtt fii maa fii sa ndey maa fii sa baay yaa ngi dégg xale yi nag kee amul neen ni xanaa ko ba sonn mais lan moo ci sa yoon mais da nga ma gën a xam ni moom amul nen wala am nen mais loolu sa yoon nekku si nen na kan moo koy joxe man maa koy joxe wala moom yéen ñaar parce que boo leen ko organiser organisation bi doxul. ça se voit que ni nag jàngoo dara xamoo dara ndax yow boo demee ba ni doom man ak moom ñoo koy joxe kon y' a problème jàngoo dara yow est que sax Faatixa bu jub mën nga koo tari. waaw nag war nga maa xool ma xamoo dara. mais parce que boo taxawee fii naan ma doom man ak sama soxna ñoo koy joxe kon xamatoo. Faatixa bu tari yow mën nga koo sa euh, Faatixa bu jub mën nga koo tari yow. nga ni ma ni ndax Faatixa bu jub est-ce que mën nga koo tari. man lu may jullee kon. waxal ma dégg. waxal ca kaw ñu dégg ko dégg loolu aku kuma iya kana bisa